mais dañu toll ci boo xam ni euh, daanaka euh, lu bës am Sénégal dafa euh, xam élection yi des na un daanaka ñu ngi mel ni dañoo nekk ci campagne moo tax ñu duñu bàyyee ci terrain bi wax sur le terrain li ñu a wax ak ñun nit ñi dañ jéem a drôle programme bu président a drôle itam bilan jéem wax askan bi ba nga xamante ni nii li président liggéey ci réew mi liggéey ko ci département Mbacké euh, ànd koog nag suñu frère am Modou Fall tam day leer man Macky mais damay ànd ak sama frère Pape Modou boole ñu pour ñu ànd pour jàppale ko ci région bi ak ci département bi kon li xew Touba bu ñëw fi noonu la demee mooy ñëw na xam na ni am na projet ak Mame Mbaye Niang war a wuy ji am na projet ak euh, Adji Sarr war a wuy ji mu bëgg a war réew mi pour def ay finance que ni population beeg nit ñi mën nañ àndal bu ma yëngalee réew mi ken du ma woo ma yaakaar ni gis nga yooyu muy roof yooyu du jàll dana wuy ji projet Mame Mbaye Niang bi na yoon war a wax dana ko wax bu Mame Mbaye nekkul ci yoon day ni ko yee eh, li nga li nga kii di waxal dëgg la yaa def nangam bu fekkente ni nii dafa fekk li muy wax Mame Mbaye déformation la yoon dana jël lii yoonu déformation teg ko Ousmane Sonko affaire Adji bu fekkente ni viol bi état euh, euh, magistrat yi ak procureur dañoo am preuve que ni yaa violé yoon dana def li ñu war a def Angloma bu ko defoon ak lu ñu war a def keneen bu ko defoon mënoo nekk ci am réew réew moo xamante ni la nga def bu ko defoon jàpp ko bu ko keneen def jàpp ko nga ni yaa def koog defoo ko nga ni man kenn du tudd kenn du ma laal bu ñu ma nee jàpp réew mi tax dañ may kompaloo ma ni loolu ay jëfi caaxaan la parce que am na ci loo xamante ni dama ko wax naa ko ci biir kii bi c'est-à-dire boo ni woon sax Angloma moo fexe ba yóbbu nga ne xaw ma ñu waxee ngay tari ay ay ay alxuraan xam li yàlla wax ci euh, jigéen joo takkul nga dem fu tokki ba ne dungu ñu maase ah fu la ñu làmb la fa nga xëy suba ñu ni la kone nga xëy suba tëb ni demuma fa la njëkk wax sax ba mu yàgg dem naa waaye affaire de complot parce que Euh, Liberté li mu jaas waxoon ni ci affaire mandat bi xamoon nañ ne Ablaye Wade bi waroon naa nekk mandat mais xam nga kon ñun politiciens yi rek ñoo taxoon ñu doon coow mu jàpp ni bu jëlee affaire def ko dossier politique c'est-à-dire dana nekk victime nit ñi yërëm ko mooy euh, Ousmane Sonko dina wuy ji procès mamba Mbaye Niang bi procès Adji Sarr bi tam dana dem wuy ji ko kenn yéenewul nag kenn kaso mais man bu ma defee lu dul yoon yoon damaa war a mais man fii ñu taxaw nii am na sama collègue samay rakki journaliste yoo xamante ni nii bañ fi déggee ni Angloma daa sàcc xaalisu jàmbur Tiriyaane mais dañ ko bind loolu mooy journaliste am réew lañ nekk moo xamante ni ku fi def loolu yoon dañ lay jàpp affaire troisième mandat bii ñuy wax quatrième mandat mais gars yi dañuy dañuy dañuy fonto yow koo xam ne dafa mel ni sax maanaam maanaam bu doon politique bu ñuy def dafa mel ni ñoom ay gone yi ay élèves primaire primaire maanaam minime yuy yuy yuy compétir rek benn un jour professionnel dafa mel ni Macky Sall leen tiim ci lépp. yow ku la gagné woo la jolog nga ñëw ngir woote référendum ñu tënk ci ta référendum ba ni ñaari mandat de cinq ans ku ko am waratoo jiite réew mi Macky Sall am ñaari mandat mais xanaa kon même Ousmane Sonko bu gañaatee réew mi xanaa douze ans la fii def Macky ñaari mandat la am benn mandat sept ans ak benn mandat boo xam ne cinq ans la muy douze ans mandat de deux mandats de euh, cinq mooy li ñu def ci constitution bi loolu la lañ wax ni par exemple la Macky bi ñu saa si constitution bi loolu la dugal ca mandat ba ñu toog ñoom référendum léegi est-ce que bu ñu Sall amee mandat de cinq ans est-ce que wut tamaat beneen mandat de cinq ans ci kaw bu parce que président mën na ni damay laaj beneen mandat de cinq ans ilaa man kat sonn naa am na ku ma mën a remplacer man laajuma mandat waaye doo fi laaj mandat wala nu mu tëtti yaa waxoon ni Macky Sall bu fa waxee ni man euh, ñaari mandaa la yem xanaa Macky Sall constitution Sénégal bi tiim Macky Sall bañ koy bind Macky Sall judduwul Senghor jaar ci Abdou Diouf jaar ci ba Abdoulaye Wade jaar ci kon nañ bàyyi affaire ak xelu askan wi ñuy ñuy ñuy jaxase naan ay troisième mandat moo waxoon ni waru koo nekk Macky Sall mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ba saa moom mu taxaw ni kat yéen waa Benno Bokk Yaakaar wala waa Sénégal man bëggatuma waaye mais ni ñuy wax ñëpp naan mooy suñ mooy candidat mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ñun fii ci commune de Mbacké Macky Sall lañ élire élire pour mu dem élection élection yii di jëm pour jëlaat réew pour doxal ko ñuy wax ni tam ñun réew mi même Macky Sall war a nekkaat candidat ñun réew mi bi mu fi amee léegi dañu fi dañ fi am li mu fi am ci régime am dañ ko mos a am Ila Touba 406 milliards département Mbacké dafa mos a am hôpital mu def fi hôpital 40 et quelques milliards monsieur Touba lam fa def ci Italie Serigne Mountakha mi nga xam moom lañ yaakaar nga xam ni sëñ Touba euh, euh, la nekkal ni ko li ngay def ci yoon wi Serigne Touba mi tax nga di ko def dina la fay boo demee Tivaouane lam fa def nit ña boo demee Madina Baye lam fa def ñu ngi koy gis kon ñun même bu fekkoon ci nii politique tarixa yi njaakaar am na nag ñuy menacé naan ay dañuy fexe ba kenn dootu jaamu nit di jaamu yàlla ñun dañ ñun yàlla la ñuy jaamu jaamu wuñ mais nag am nañ ay sëriñ yoo xam ne ñoom lañ gëm ci suñ pas-pas ñooñuy ñooñuy yóbbaale ci yàlla kon kay yonente bi sallallahu alayhi ko yàlla wàccee kon yonente bi ko wàccee kon kon ab sëriñ jëru yàlla di ko wàccee kon tarixa yi nga xamante nii dañoo ñëw ba pare branché wu directement ci yonente bi sallallahu alayhi di ko liggéeyal boo demee Tiwaawan Alaaji Malik mu yonent bi lay liggéeyal boo demee boo ñëwee Touba Sëñ Touba yonent bi lay liggéeyal kon buñ nee dañuy fexe ba nit ñi di jaamu di jaamu yàlla bañ a jaamu nit ñi nga xam ne ñii dañoo sax yabaat waaw xam nga xam nga ñooñu samay samay suñuy collègue lañ lañ def maa ngi koy rafet maa ngi koy rafetlu parce que loolu mooy mooy mooy mooy affaire bi kon damaa bëgg rek nit ki loo mën a wax nga toog pour Macky Sall dégg laa nga toog pour bëgg am position yu baax looy wax na ngay wax yàlla tax Euh, Modou Touré Abdou Bali ma wooteeg bu keneen wooteeg loolu yëpp rafetlu nañ ko mais ku ci ne rek la ngay wax na nekk li nga xamante ni akulaay taala ak dëkk. waaw dama ci doon fésal sama ànd ak Pape Modou Fall. ci nag rek mooy Pape Modou Fall parti la yor. ba pare di allié président Macky Sall muy am confiance ci moom jël poste responsabilité jox ko. ma gis tam muy ànd ak man naa seede loolu parce que man booy ànd ak man bu ma gëmatoon Macky Sall sax ngay ànd ak Mor Mbaye di ko ndax ma bala waxuma la ak président mooy li muy def man sûr que ni naxul président daal bi mi ngi def ay financement ma Jurbel gémm ne Pape Modou du ministre mais mu ngay animé Jurbel partout Sénégal Kaolack fépp Touba tey bu ko neexoon mu ni Jurbel mooy sama base du ma dem Mbàkke du ma dem Touba mais am nañ Touba ñaata rencontre am nañ Mbàkke ñaata rencontre am nañ ci euh, ci région bi ñaata rencontre loolu mooy dëgg te pourtant yorul poste ministère yorul ay euh, ministère ay milliards c'est-à-dire booy jàppale nit da ngay jàppale nit ci fidélité loolu mooy ngor moo tax man man de leader yi wax fii ak responsable yi wax ci Sénégal gi man Pape Boro ma gën a doy moom mu wax ma te li mu wax dara dañu ko ci nit na bu fekkente ni day ànd ak yow la sëñ Blaad waxoon ay waxi teyam di may ngoog waxi jëfi subaam sëñ booy ànd ànd la kooku parce que beneen bi mooy ki ñuy ànd muy président Macky Sall naxu ko parce que ci wàllu xëyum ndaw ñi am na ay ay ay ay ay nit ñoo xamante ni nii jël na leen ci sama ginnaaw fii ma taxaw am na ci ñoo xamante ni nii seen i doom jël nañ leen ci ñu ngi ñu am nañ abonné si si nañ ci wàllum xëyum ndaw ñi ah euh, euh, euh, plus de quarante personnes fii ci koñ bi ba ci partout Sénégal ay Marème Gueye yëpp ñu ñu ñu ñu ñu ñu ngi ci dugg donc jëf yu mel noonu boo ko dee def di jàppale président di jàppale askan même bu nit ñi politique gu doon sax dañ lay jàppale parce que am nañu li nga yow buñ la joxoon poste responsabilité bu mag donc di nga mën a jàppale askan wi man xamalan moo ma ñor mooy population Mbacké population Sénégal c'est-à-dire président de la République moo mooy nekk suñu candidat bii danaa ñëw campagne la ma war a def danaa ko def bu fekkoon te ni nii damaa mere nit sax danaa dem moom u fekkeen te ni nii tiraillement dana dafa amoon tam danaa fexe ba rassembler ñëpp ñu ànd parce que gagné président Macky Sall mooy ndabal euh, Angloma mooy ndamal Abdou Mbacké Ndaw mooy ndamal Pape Modou Fall mooy ndamal Sénégal gi donc li am solo mooy ki bëgg nekk maire nekk na maire euh, doxalal dëkk bi ka bëgg ka nekk député nekk na député doxalal demal doxal assemblée mais man sama programme ak sama jóg jógaat taxaw mooy président Macky salli mii nga xam damaa waroon senegal gépp ni moo gën ci réew mi nañ ko fan te rusloowu ma gàccaalu ma ndax su ma waroon wax ko la ko war def na ko Mbàkke gii ñaata at lañ toog dafa ma sa am esat am na esat tey jii boo xoolee lampadaire yi ñu bénéficié wu est xam nga budget mairie Mbàkke ñaata la woon ci jamonoy Wade ak jamonoy Abdou Diouf ak président mi nekkee laaj ko maire yi neen seen budget ñaata la léegi li tax gars yi mën a am mën a mën a mën a mën a fay seen sen sen seen emploi yi te amatuñ benn problème c'est-à-dire gars yi dañu wax loolu modernisation niñ moderniser euh, lampi euh, mairie euh, marché Mbacké bi est que amoon na léegi nag man nan laay amee président de la République boo xamante ba may wax 2012 nañ ko fal buñ ko falee dana defar réew la ma amutoon sama dëkk mu defal ma ko Ila Touba 416 milliards musuma cee jaar mu defal ma ko département boo xam ne mosu ñëw hôpital def hôpital def réalisation yi mu defoon ba pare Sénégal gépp foo dem ci Sénégal man mi àndoon na moon nañ ko fal ma mën faa sikki waaye sëriñ bi ku yokk ku yokk tere kay dolli ñeex ñun kay ñeex mi nañ ko yokk nañ nañ nañ nañ ko dolli mu gën a saf Mbàkke bu nu fii si Touba bu nu fii Sénégal bi fa nu bi si jàmm yooyu